salaamaaleykum papa ji. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaw dañ laaj tur ak foo jugee. man maa ngi tudd Serigne Ibrahima kan maa ngi jugee Tëngéej. waaw papa ba nga duggee si biir xalu Mame El Hadji Malick Sy ziar ba pare ba njëg nga si am. waaw. baada aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim euh, bi subhaanahu wa taala moo wax inna allaha wa malaikatu yusalluuna ala nabi yaa ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallim taslima maanaam aaya boobu si tënk amul benn jaamu yàlla boo xamante ne yàlla digle na ko ba pare ànd si ak jaami bu dul julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moo ne maa ko def maak samay maa lekk kon ñi gëm yéen ñi gëm yàlla julli leen si moom kon boo ñëwee fi fekk fi maam Seydi Hadj nag dugg si xabaram li ngay njëkk yëg li alxuraan ne wala tax si bann alladina qutulu fi sabili amwaat bal ahyaun inda rabbi yursaquuna maanaam aaya ba borom bi subhaanahu wa taala dafay wax ne bu leen yaakaar ne mukk ñi nga xam ne dañ daan liggéeyal yàlla dee nañ déedéet bal ah yaawun bal li fi nekk ah yaawun ñu ngay dund bi rabbim fa seen borom kon loolu ngay njëkk a yëg ne ñi am na lu ñu liggéeyoon borom bi subhaanahu wa taala tey ñu ngi tëdd fi waaye nit ñi ñu ngi ñëw fi di leen ziyaare ndax nit ki dee nga mën a ñëw xabroom di fa jële ay dépasse dépasse kooku boo jàppee ne dee na yow yaa dee mais loolu ngay njëkk a salaamaaleykum yaay booy. waaw maaleykum salaam wa rahmatulah. waaw yaay tur bi ak sant bi ak foo jóge euh, man Oumy Sarr laa tudd maa ngi dëkk HLM 5 waaw. ñu gisee nga taxaw si bunt bi di ziar la moo waral loolu. waaw dafa ne xam nga foo taxaw ziar boo xasee bu dugg Tiwaawoon di ñëw boo ñaanee yàlla nangu ko incha allah ma ñëw ba fii si biir fii fees ma ne xaaral ma toog ziar sama maam maam El Hadj man maay Oumy Sarr mm, taalibu Serigne waaye laaj Alaaji ji ay jaar-jaaram buñ koy wax fii fii ba suba duñu fi jógee ndax moo waxoon képp kuy taalibe rek na nga ñëw Tiwaawan fii ñu màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foo toog màggal ko moom même dafa préféré woon ñu ñëw fii Tiwaawan màggalee ko fii guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. waaw merci yaay booy déggu nañu wax ji rafet na waaw salaamaaleykum soxna si nuyu nañ la ziar la maa ngi doy loo ziar asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaw laaj tur bi ak sant bi ak foo jóge maa ngi tudd Aminata Sy maa ngi jóge dakaar Dakar waaw non ba nga duggee si biir xablu Mame El Hadji malik ba pare nga ziar ba yëg-yëg nga si am. maa ngi sant yàlla bu baax a baax di julli si yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ñun ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax bu ñu bokkee si tarixa Cheikh bu ñu ñëwee fii tey jii suñu sag la dañu ñëw fii ñaanal ki fi tëdd. yàlla yokk leeram yokk leeraayu bàmmeelam ñaanal doomam yi ñaanal soxna yi bu ñu paree ñaan suñu soxla yàlla dina nangu yëpp ci barke guddi borom guddi bi ñaan nañ ñaan nañ soxla yëpp yal yàlla mottali lépp nag ñaan nañ lépp nag. waaw su laaj maam El fi bàyyi yow mii di ndaw ba mu ngi dara. suñu maam El Hadj Malick si bàyyi na fi suñu tarixa cheikh Cheikh Tidiane si Chérif loo xamante ne. tey ji sëñ El Hadji Malick moo ko ko représenté fii nii si Sénégal ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax ñun ñi bu ñu xëyee suba dañuy wasifa bu timis passé dañuy wasifa dañuy laazim vendredi moom mooy fi indi loo xamante ni aljuma bu 5 heures jotee bépp ndaw boo xamante ne yaa ngi nekk jullit nekk euh, taaliba cheikh di nga dem si zawiye yi nga dem foofu tudd yàlla laa ilaha illallah yàlla na yàlla fayal loolu moom moo ñu ko fi bàyyeel donc koy sant bu baax a baax di ko gërëm. macha allah yëg-yëg bi ma jàmm bëri na trop waaw doon li nga neex doon li nga doon dafa neex trop macha allah ba ma duggee ziar sama sëriñ ñaanal ko fu mu tëdd yàlla na ko yàlla yokk leer taas si taas mu si barkeem barke yonent bi mu doon loo xam ne mbégte la ci man daal mbégte la man moo tax gàmm fu mu jotee rek ak fu ma mënta nekk rek damay bàyyi lépp ñëw teewe lu mel nii. waaw loolu leer na sëñ bi ak ni ñu gisee jamono ji xale góor yi bu la neexoon nga dem feneen def lu la neex ñu gis la fii nga ñëw si bërëb bi waaw loolu moom sant yàlla rek ndax boo juddoo fekk say waay jur ñu am luñ jublu muy yoonu tarixa Seydil Hadji Malick mu wax ñu kan mooy yonent bi ndax daf ñoo jàngal yonent bi liir ba néew néew ba liir kon loolu bu ko amee mu koy wax rek ñu santee ko suñu borom bu baax baax mu doon fierté suñu am ñu am ci mbégte trop macha allah moom wax dëgg yàlla am nañ ci mbégte trop ndax bu ma doonee Tidiane dama koy sante suñu waajur bu baax a baax a baax ndax ginnaaw raay gën dëkk na rëbaay goo xam ne tey jii bu la yàlla boolee ci genre yu mel ni da koy sante suñu borom ndax des fois dañ ñuy tooñ naan ni yéen jàpp ngeen xale yëpp daf leen ay Tidiane ma ne leen bu buñ doonee Tidiane sant yàlla la ndax boo amee sa doom mu nekk si yeneen yoo xam ne tamit doy na waar neex la mu dugg ci yoo xam ne daayira da lay jàngal yenent bi di la jàngal lépp di la jàngal sa tariqa kon loolu tamit sant yàlla la bu baax a baax yow mi di sën ndax mënoo ñu wax si tuuti maam El Hadj Malick Sy lu mu fi ah, Maodo moom li ma la ci mën a wax bëri na bëriwul fa dëgg yàlla li ma la ci mën a wax bëri na bëriwul ndax dafa nekk loo xam ne daal man ba may nekk xale bu ndaw yàgg na dama daan gis mu yor parasolam rek may toog ma naan waa kii moom mooy kan borom parasol bi parce que man ki ñu ma tuddee rek moom laa gënoon xam ci ay affaire am tamit tuuti mais Maodo bi ma ko mooy daj dëpp gi ndax ki la jàngal bi. jàngal la ko comme yow da toog mel ni yenent baa ngi nii toog jàkkaarloo yow kon loolu noonu fierté la boo xam ne neex na trop macha allah dama am naa ci mbégte trop am naa ci mbégte trop